xam ngeen ne bés bu yàlla sàkk ngeen dégg nit def mbir mu yàlla ci boppam aaye te ñu naan yàllaa ko dogal mbaa nit tàbbi ci ñaawteef ba mu jural ko safaan bu ko defee kenn du ko wax dëgg xanaa ñu naan ko muñal yàlla ko dogal lu yàlla rëdd ci sa jëla ndogalu yàlla kenn mënu ci dara moona loola nit ki def nun ñépp xam nanu ne yàlla aramal na ko kon ñun ñi naan yàllaa ko dogal ngir dalal xelu kooku ay naafeq lanu te nu ngiy tuumaal yàlla ci loolu kon li nu war a xam mu leer ci xel yi moo di waxi yàlla du safaanoo yàlla du njuuy kenn jegewul mbon te du soppiku mbaa muy leer ak di lëndëm kàddug yàlla dafa ne bula fiir galanee bul ne yàllaa ko dogal ndaxte yàlla jegewul ak mbon fenn te du fiir kenn waaye ku sa bakkan nax ba mën la loolu moo lay dugal ci fiir kon bu bëgg-bëgg ëmbee baakaar lay wasin te bu baakaar màggee jur dee yàlla aji leer la te genn lëndëm nekkul ci moom mbokki déglukat yi ni nu ko déggee ci aaya yi nu jàng léegi yàlla du fiir kenn seytaane mooy fiir nit tàbbal ko ci li neexul yàlla kon kay su nit ki defee bàkkaar ba mu jural ko safaan ak fitna ak naqar dañu waroon a wax ne seytaane moo ko dogal te ñu bañ cee taqal yàlla ci misaal su genn góor ak jenn jigéen toppee seen nafsu mooy yoonu sëy ba ëmb sosoo ca loolu kay wax dëgg bu ñu nee yàllaa ko dogal ñu ngi koy tooñ am déet waaw waaw ndaxte yàlla mënula dogal lu ni mel nanu xam ne seytaane mooy ndeyu bépp ñaawteef mooy fiirkat bi fiiroon sunuy maam aadama awa ca toolu àjjana ba ñu daanu ci bàkkaar aadama ak awa déglu nañu iblis ba lekk ca garab ga yàlla tere woon noonu ci seen benn jàdd yoon googu képp la bàkkaar dugge ci àddina indaale fi dee te dee daldi law ci nit ñépp seytaane dafa xam ne këram mooy safara moo tax muy def lépp ngir noot nit ñi ba yóbbaale leen safara mbokki déglukat yi seytaane du tàyyi de ba mu jógee ci sunuy maam aadama ak awa fiir na ay nit yàlla ak ay yonent yu bare ñu bare ci ñoom seytaane moyloo na leen coobare yàlla kon xam nga ne yow itam seytaane du la bàyyi ci jàmm am na kenn nag koo xam ne moom itam seytaane fiiroon na ko wante deful benn baakaar mooy Yeesu Kirist moom musalkat bi seytaane dafa ko fiiroon ngir fanq yéene bi yàlla amoon ci moom yéene yàlla ci musalkat bi moo doon musal doomu aadama yi ci safara abadan jaara ko ci deewam noonu seytaane xaar ba jamono yu yell ngir fiir musalkat bi yéesu xam nga ne ni seytaane di fiire benn la du soppi ko liy wuute mooy anam yi ak détails yi waaye yi muy laal ci nit bu koy fiir benn la du soppeku nanu déglu kàddug yàlla ba gis ni seytaane fiire woon yeesu mu ne xelum yàlla yóbbu yéesu ca màndiŋ ma ngir mu jànkoonteeg fiiri seytaane yéesu nekk fa lekkul ñeen fukki bëccëg ak ñeent fukki guddi doo a noonu seytaane fiirkat bi ñëw ca moom ne ko boo dee doomu yàlla santal doj yi ñu nekk mburu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 yeesu tontu ko bind nañu it ne bul dingat yàlla sa boroom gannaaw loolu seytaane yóbbu ko ci kaw tund wu kawe lool won ko réewi àddina yépp ak seeni ndam mu ne ko lii lépp dinaa la ko may soo sukkee màggal ma waaye yeesu tontu ko sore ma seytaane ndaxte mbind mi nee na nanga màggal yàlla sa borom te jaamu ko moom rekk xarit yi ni ngeen ko dégge fiir ñetti façon yi rekk lay laale nit bëgg-bëggu yaram rëyuk àddina ak xemmemu bët gannaaw ñeent fukki bëccëg ak ñeent fukki guddi yu yéesu lekkul mu xiif seytaane def ko am siiw jëkk ko fiir ci wàllu bëgg-bëggu yaram mu ne yéesu boo dee doomu yàlla santal doj yii ñu nekk mburu ku nekk xam na ne lekk aayul su ëppul waaye naka ngay ame lekk ga moo jara seet seytaane dafa bëggoon a jañ yeesu ci jëfandikoo kàttanam ci lu dëppoowul ak coobare yàlla su la seytaane xiiree ci càcc alalu jàmbur ngir faj sab xiif faj nga aajo bu mat aajo waaye pexe mi awul yoon kon bu la ca safaan fekkee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 yàlla aaye na ko ay yooni yoon ci mbind mu sell mi wax ne yàlla dàq na ñi rëy waaye yiwal na ñi woyof kuy yëkkatiku dees na la suufeel kuy suufeelu ñu yëkkati la rëyuk àddina dafa di mbir moo xam ne seytaane da ci daaneel ñu bare di ko waral mooy nit dafa bëgg siiw ak nii laa toolu bëgg gis leen ma moo waral yenn saa nit dugganteek seytaane mu may ko ndam ak bayre bu ko defee ñi xamul daldi foog ne yàlla ko barkeel fekk na seytaane la te moom lu mu la may moom seytaane dina la laaj lu ko ëpp fuuf noonu bés bu ko seytaane toroxalee ñu naan yàlla ko nattu ndogalu yàlla la fekk na yoonu yàlla nekku ca seytaane moo ko toroxal ci ñetteelu fiir gi seytaane yóbbu yeesu ba ci kaw tund wu kawe lool won ko ndami réewi àddina yépp ne ko lii lépp dinaa la ko may boo sukkee màggal ma fiir gi kon mu ngi laal mbirum xemmemu bët kon li seytaane di laal ci fiir gi mooy xemmem maanaam bëgg am bépp mbir mu say bët tegu nga bëgg leen yilif bëgg leen moom bakaaru daawuda ak batseba jabaru uri looloo ko juróon yow miy dox ci mbedd mi itam wala sax feneen foo mën a nekk ba say bët tegu ci seen soxna nga xemeem ko nga daldi sàkk ay pexe ba joteek ndaw si xamal ne seytaane tanc na la ci fiiru xemeemu bët bu nëbboo mbaamu feeñ bu kenn ne yàllaa ko dogal lu ni mel mënula jóge mukk ci yàlla seytaane mi la noot moo koy jëf ci yow te bu loolu dakkul yàlla dina la bugal bés waaw lu wér mooy bu bëgg-bëgg ëmbee baakaar lay wasin te bu baakaar màggee jur bi bëgg-bëggu aadama ëmbee wasin na baakaar te baakaar ba jur jikko yàlla ju sell ji dafa laaj mu àtte bépp baakaar noonu yàlla dina àtte doom aadama yépp ni mu àtte woon aadama ne ko gannaaw lekk nga ci garab gi ma la tere dinaa rëbb suuf si ndax yow coono ak metit ngay dëkke ci àddina ci saw ñaq ngay jële sab dund ba keroog ngay dee ndax pënd nga te dinga dellu nekk pënd loolu la bàkkaar di jur muy coono naqar ak dee waaw peyug bàkkaar mooy dee kon yow mi xemem jiital ba tax nga dëkk ci bàkkaar na la wóor ne yàlla du waxantu benn bés àtteb yàlla dina wàcc ci sa kaw soo tuubul say bàkkaar te nangu pexe mucc mi yàlla tër yàlla aji yërmande la moo tax ba aadama bàkkaare dafa ko wuti bëgg mu tuub bàkkaaram nekk aji yërmande tax yàlla ubbi buntu mucc kàddoom gu sell gi nee na bu leen tiit ndaxte dama leen di xamal xabaar bu baax buy indi mbég mu rëy ci nit ñépp ndaxte yiwu yàlla feeñ na te ubbil na ñépp buntu mucc kon nag xarit yi buntu mucc bi yàlla ubbil nit ñépp mooy deewu musalkat bi yéesu ngir képp ku ko gëm mucc ci mbugalu bàkkaar loolu mooy yéeneem ju rafet ji yàlla am ngir musal nit ñi seytaane këppatal ba tëj leen ci fiiram yi tudd bëgg-bëggu yaram réyug àddina ak xeme mu bët ci ñetti fànna yooyu rekk la seytaane di fiir ñépp te amul kenn ku ci mën a mucc kon koo mën a doon soxla nga mucc gi bawoo ci musalkat bi yéesu te yàlla waajaloon ko ca njalbeen ga ci dëgg yéesu mooy ki la mën a wallu ndax moom jaar na ci fiiri seytaane ni nun ci bépp fànn waaye deful bàkkaar benn yoon sax kon li lay mën a rawale ci fiiri seytaane mooy nga wóolu yéesu noonu ci kàttanam moom mitta seytaane ki pexeem di nga mën a raw waaye li wér mooy ci sa dooley bopp doo mën a rëcc mukk waaw léegi leer na ne yàlla du fiir kenn ngir mu daanu ci bàkkaar waaye nag dina nattu ay gaayam njëriñu nattu moom mooy gëna a dëgëral ngëmu gaa yàlla yi ak seen pas-pas ci topp yàlla ak coobareem kon naam yàlla dina nattu ay gaayam waaye du leen teg mukk nattu ba mu wees li ñu mën a dékku moo tax kàddug yàlla ne yàlla kuy sàmm kóllëre la te du nangu nattu bi wees seen kàttan waaye cib nattu dina leen ubbil bunt bu ngeen mën a rëcce ba ngeen mën koo dékku waaye nag yow déglukat bi ngir loolu mën a nekk dëgg ci sa dund faaw nga gëm saraxu yeesu ca bant ba nga gëm yeesu ni sa musalkat bi dee ca bant ba ngir sag mucc te nga jébbal ko sa dund gépp mu koy jiite maanaam ngay def coobareem bés bu nekk noonu bu fiiri seytaane taxawee dinga gis ni kàttanu yéesu di jëfe ci yow may la doole ba doo daanu ci fiiri seytaane yi yóbbe nit mbugal fàttalikul ne yéesu mooy musalkat bu wóor bi dafa la bëgg a dimbale ndaxte li nga nekk neexul yàlla te yow sax soo wéetee xalaat di nga gis ne neexu la waaye problème bi mooy amuloo kàttanu të seytaane moo tax yéesoo ngi taxaw ci sa buntu xol di fëgg mu ngi xaar nga ubbil ko mu dimbali la waaye wolof njaay dafa ne ndimbal na ca fekk loxol borom moom yeesu sunu njariñ tey ak ëllëg rekk a ko yëkkati mooy ki la mën a wallu ci kanamu fiiru seytaane ndaxte moom gannaaw sonn na ci nattu yi mu daj ci kanamu seytaane mën na dimbali ñiy jaar ci nattu ndaxte yéesu du ku mënula bokk ak nun sunu naqar ndax jaar na ci nattu ni nun ci bépp fànn waaye deful baakaar kon ci yow la des léegi gëmal yeesu te dinga mucc ci mbugalu baakaar ndaxte yonent yépp seede nañu ko ne ku ko gëm yàlla dina la baal say baakaar ci turam kon mbokk yi jërë ngeen jëf ci déglu bi nu ngi leen di tàggu ba beneen yoon bu ngeen amee laaj ci njàngum tey mi bu leen xel ñaar bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li kàddug yàlla wax ne bu la fiir galanee bul ne yàllaa ko dogal te yàlla jegewul ak mbon fenn te du fiir kenn waaye ku sa bakkan nax ba mën la looloo lay dugal ci fiir kon bu bëgg-bëgg ëmbee bàkkaar lay wasin te bu bàkkaar màggee jur dee